354 44 44 restaurant El d'assi bi nek ci yoonu bi manque islam mu njëkk ba mom la ni woyé le palais du goût. ak la crédibilité notre credo. senevision.com world la Togo. tëggoo. senevision.com kumpa Tagona. Qui yéen. ce pas di leen wéy di ñaan ngeen di abonné ci suñu site bi di senevision.com te bu leen fàtte di cloche moy tax mu len di man di signaler bepp vidéo bo xamné duggal dugal nañ ko ci site bi. jere ngeen jëf mbokk yi and ak ñun ci seen site bi di senevision.com ñoo ngi len di nuyu di rafetlu and bu ngeen di and ak ñun mbokk yi nak Seexuna Kan moo ñu fareel ci walum caméra bek montage bi ci kaddu gi seen bokaro na Cissé mbokk yi tay nak ñi ngi fi ci bu Touba Mbal fekk ci fi ko xamne mom ngeen jakar lol ni muy serigne Seexuna Kan sëriñ naa Kan nag ñaar ñii ñoo ko seq te ñaar ñooñu nekkatul ñu ku ñuy présenté ci yoonu murit sëriñ sàmma Mbàkke ak ki nga xam ne mooy sëriñ se Moodu Kan ñaar ñooñu ñoo ko seq te ñooñu kenn ku nekk xamoon na ni ñu toll ci yoonu murit moom nag muy yëngatu ci wàllu ñaan tey nag ñu seet si ko fii fa yéene séq ak moom ay kàddu sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziar di la bàyyi nga gën a présenté wax suñu mbokk internet yi lay seetaan aoudu billahi min asheytaan rajim wa inni auduha bika wa duriyataha min asheytaan rajim rabbi aoudu bika min hamadaati shayatin wa aoudu bika bi ay yaxduun xasbuna allahu wa nicma alwakilu nicma maga wa nicma nasir la xawla wala quwata illa billahi al ali azim subhana zik mulki wa malakuti سبحان ذي العزة وجبروته سبحان حي الذي لا يموت سبح قدوس رب مايك والروح أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته او présentation bi de xanaa moom defe naa ñun yoon wi bokk muy yoonu murit defe naa bu ñu ñëpp ndax fi ñu bokk moo tax dañuy doo dañuy dañuy doom yoon wi ñu nekk ay taalibe Sëriñ Tuubaa di ay murid dañaan nekk saadix ñu mën a wax suñu càgg la ñu ngi sëtoo suñu waajur góor di di doomi Sëriñ Moodu Kam moom Sëriñ Masamba boobu Tuubaa Kër Njambur suñu waajur bu jigéen di doomi Sëriñ Moodu Faat Xëy Mbàkke moom Sëriñ Masamba noonu lañ bokk coon murid sëriñ bi ngay yëngu ci wàllu ñaan xam naa ne col gi de moom eh, yéeme na de waaw dafa mel nii xanaa mën nañ lay wooyee borom jinne ndax col gi moom daanu roog col colu ku yor ay jinne waa xam nga googu à chaque fois ñu ma koy gaaj ndax mooy si maa ngi si dëgg mën a gaaj ñu ma ñu ma koy gaaj bëri na waaye xam nga tout temps googu du ma ci bëgg du sori xam naa daal damay boobu yëf un point un trait boobu yëf nag sa yëf nu nekk nga ñooy dikkee nu nekk ngay mag waaw masagam col gi de man de xanaa ne moom bu doon beneen fas xeetu col moom danaa la ko laaj waaye gi moom damay bañ a laaj la ko guddi jot jinne yi wuy si ma waaw sëriñ bi ndax man nga ñëw ñëwal ci lan ak lan sëriñ seexuna kan dana ci yëngu ngir jàppale ci jaamu yàlla yi waaw gi nga xamante ne si moom ñuy yëngu xam nga jamono dafa toog foo xamante woote yi daa bëri eh, ku nekk nga woote di wax fu nekk nga ñu woote di wax ñun nag bañ bañ bañ bokkee fa ñu bokk ba noppi doon nga ñu doon dafa doyut doyuñu bu ñu neexoon doon nga ñu doon rek toog jàpp suñu jàmm waaye dañoo génn dox gëstu dugg Nigéria Tchad mag gësu ba ba xam gu wéex toog ci gu wéex ñëw ñëw toog nag fa seen i xeeti jaamu yàgg ci anam bu ne ci xam-xam bu ne euh, fii ñu toog ci suñ gànn gàngu naa gi nit ñi dañuy fekk ñuy faj seen jàmm ñuy faj seen aajo. xanaa ajo juñ bëggut a faj waaye guñ bëgg a faj rek suñ borom man mën nañ ci fekk si du ci nàgg nag ndax yàgg mooy may li nga xamante ne si euh, am nañ ko ci xam muy wóor ju ci xet doomu aadama yi guñ bëgg a guñ aju juñ bëggut a faj waaye guñ bëgg a faj suñ borom mën mën naa dimbali def ñu faj ko lenn daal nga xam ne moo ñu të mooy dekk ko faatu te te loolu am nañu yàgg may ñu man ko waaye duñ ko def ndax yàgg du wax bu noppi yàgg du wax bu noppi di eh, ñuy eh, ñuy weddi ndax suñu boobu moo ne ci alxuraan gu may wax gën nañ ga aw quti'at bihi al-ardu aw kugima bihi mawte ba yi gaa xiram jamaan bu fekkee aw quti'at bihi al-ardu bu fekkee dañu xotti suuf si ci xam-xam aw kugima bihi mawte ba nga ñuy wax ko kufaar ci xam-xam ba yi gaa xiram jamaan yàgg ne c'est pas grave ndax yàgg mën ma may lépp te dana aw man kaana mayitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuuran yamshi bihi fi nnaasi kama masaguhu fi durumaati laysa bi xaariji minha kazaalika zuyyina li kaafirina maa kaanu ya'maluun euh, sëriñ bi yaa ko wax kon am na loo xam ne bëgg naa ci wax ak yow Sénégal fi mu ne ñu ngi ci ñu ngi ci jafe-jafe jafe bi bari na mais mën naa ci tudd benn jaari sow doomi Sénégal la nekkoon jëloon nekkoon meilleur élève ci Sénégal atum deux mille dix huit ak deux mille dix neuf demoon ca réewum France yokki ji xam-xamam. jamono ji senegal ak ay mbokam jaaxle nañ ndax ñing koy wër te comme yalla mayna la xam-xam ndax am nga ci ay pexé waaw waaw nga xam nga am na ay mbokki egaf sax ba yu nekk France bu may wo di mako wax waye xam nga nit ki nga nga ñaan faaw nga xam ay mbokam ndax man nga ñaan ci su way ñaan dafa amu yoon li nga xamante si maa koy gas appel pour aduna bépp diko digg képp kuy mbokkum sa wa nga ko man sëñ Cheikhouna Kane maa ne man naa koo feeñal te ay mbokkam bu ñu ma jox benn dërëm ba keroog muy feeñ na naa am gu bokk ci moom rek benn muy ay yërëm wala ay dàggam donc bu ma amee ay yërëm wala ay dàggam ma def ci li may def juróom-ñaari fan bu feeñut ma dagg sama kuur sànni. sëñ Cheikhouna Kane ay mbokkam kat. sëñ bi sept waaw sept jours mën na ko ba a bañ a mat sax bàkk suñ tubaab. bu feeñul nga bàyyi ñaan. sama kuus gi yaa dagg sànni nga wax. te ay mbokkam kat dama ci rek ay mbokkam bu ñu ma jox benn dërëm ba kew muy feeñ ay mbokkam bu ñu la jox benn xaalis yow daal nañ la jox lu bokk ci moom nañ la ko permettre je ne demande rien waaw ah, naa ci ko waaye je ne demande ma ma li ma mën a xam daal nañ ma jox lu bokk ci moom rek ay dàggam wala am am mbubbam loo xam ne ci jaari saw la bokk balaa mat set jours nga feeñal ko te buñ la jox benn dërëm buñ la fay mbubbam moom sow ba suuf wala ay daaga yu soo bu summi dañ ma ko jox ñu xaw ba xam bu ma dee juróom-ñaari fan te fi ñu ma dagg sama kuy gi sànni te ay mbokk bu ñu ma jox xanaa balaa nga koy ngay xam ndax mi ngi dund wala dundul donte yàlla nañ yàlla dund nag waaw dund gi am nañ ci yaakaar waaw xam nga dund gi am nañ ci yaakaar waaw ndax bu amee ku bokk ci moom rek buy dund naa xam bu dund naa ko xam amee ku bokk ci moom rek bu bu dund naa ko wax ay mbokkam buy dund naa ndax mi ngi dund bu ca xaw rek daan ko wax waaye bu fekkee ne mi ngi jot wala ñu bëgg ñëw ci yow waaw xanaa sama numéro téléphone rek waaw waaw numéro numéro bi affiché ci écran bi waaw mooy numéro bi rek 77 853 86 73 waaw léegi nag maanaam ay mbokkam bu bu bu bu ñu ma joxee bu bokk ci moom ay dàggam wala am mbubbam bu ñu ma jox benn dërëm ba ma juróom-ñaari fan bu fe bu fe ñu ma dagg sama course gi sànni bàkki suñu tubaab. kon nag mi ngoog mbokki jaari saw dégg ngeen ko Serigne naa kan fii ci Touba Mbal sëtub Serigne Modou Faty Khary ak Serigne Modou Kane. nee na bu amee lu bokk ci moom balaa mat juróom ñaari fan dana ko feeñal insha allahu nee na suba loolu amul mu dagg kurusam dootu ñaan waaw te ñi nga xam ne nag te bu boobaa nee bu ñu ko jox benn dërëm sëñ bi kon lool leer na dañuy ñëw ci geneen fànn mbirum rab sëñ bi sonal nañu bare bare ndax diñ ci yow waaw sëñ bi xam nga rab moom buñ ci toogoon taxawoon moom dong mën nañ ci def émission waaw rab moom buñ ci toogoon moom dong mën nañ ci émission rab nag day koo xamante ne si ñu bëri dañ koy wax te ko dafa am rab ak jinne loolu boo koy misaal mi ngi mel ne nga ne doomu aadama mooy jinne rab nekk nopp si jaboot rab yàgg moo ko tàqoo doomu aadama te kii mënu ko tàgg moom xanaa kay da fexe jubóog moom jubóog damay faral di wax ne tout le temps ku xam sab rab saar bi mu bëgg nga koy def jëwtu ngay dem cib sëñ naa ko jaanam waaw. nit mën nga koo xoolal ba xaw ba xam aw rabam li. waaw. waaw wowutu daa maanaam maanaam ku xam sama rab saar bi mu bëgg ngaa wax nga koy def jëwtu nga dem ci sëriñ ñaanam naan ko ñaanam kenn mënut tee ba sëriñ ndax xam ñëpp ko am dama ko am nga am ko kenn am ko da ngay fexe jubóog moom rek ndax boo jubóowut ak moom da ngay tëj ngay dugg ci xat-xat nga jënd daaw du sotti waaw c'est un problème mais bu fekkee nag maanaam jubóo nga ak moom na ma na ma tëj noonu nga ibbee wóoyootu buntu boo fëgg mu ubbeeku tànk Euh, kon di nga yëngu ci wàllu rab koo xam ne jaaxal na la bari waa na jigéen ñoo xam ne sëyuñu tey te raba leen tee sëy waaw jigéen ñi nga xamante ne si maanaam sëyuñu leen tee sëy sëy ñaar rab ak ñàkk bayra rab ak ñàkk bayra boo nekkee ci koñ fexe ba am bayra ñëpp ni ko tudd mooy góor nga jigéen fekkee góor nga nga am boom fekkee góor nga nga am soxna fekkee jigéen nga nga am boom kër fekkee rab moo wëti am ñoo xam ne rab moo wëti yow da ngay fexe ba nga ñaanu boo jubóog da ngay daal di am na ko amee da ngay daal di am da ngay daal di liggéey ba noppi te war a war a maanaam ñi jàng ba noppi laa bëgg a wax te am ay lijaasa te mënuñoo am liggéey waaw googu moom ay ñaan rek googu moom dañ ciy defar loo ko defee karawu jaar ay ànd jaar jaar mii di daw ci suuf karaw bi nga ci jël am téere bu ko boogee takkaloo ko tànk nay jox moom balaa man weer da nga am bu kawe boo xam ne da nga ci a tere say waajur ak ak fo ak foo maa moom suñ ñi bëgg a fal. moom li ñu koy defee mooy xalwatu waaw damay fexe wax ne eh, képp lii may wax mën naa ci fekk nit koo xamante ne si ku xamut ma aj ko ba ñëpp xam ko mën naa mën naa ci fekk koo xamante ne si ñu ngi ca kaw ñu ajj ko toog ñaari ñu ko yàgg muy sama course gi. nit ki boo ma xamee tur dayam ak tur bu xam poids bi mu peese xam ay atam lu ma mën ci moom amul ku ma bëgg a fag boo ma xamee say sa tur day ak sa tur baay ak sa poids bi ngay peese am naa lu ma ciy def ci yoonu xawatu tëju ñetti fan am liggéey bu ma ci def am na saax yu ci am woon na jëwul dox saax yoo xam ne dañu koy def ak loo xamante ne si day aju ca poids ba nañ koy defee foo bëgg àgg mën naa fa àgg. kooku moom ñu suñu borom may ko te defe naa réew mi ñu bëri xam nañ ci daal ata gaga cat lu sonal nit ñi la moo sonal ñëpp ba man mii toog bàyyiwuma li ma ci xam daal di sangatu rek cat bàyyiwut kenn suñ tubaab mii suñu yaakaar te da ngaa wax naan masaa wax génn kii fa diw ko mbàcce mën ko xam nga bagu fetal bu daree ci doo ci ci ci ci ci ci bàyyi ma ni mu koy def muy tëdd mën na ko nu ko raw noonu nga cat def ci doomu aadama mën na ko cat day topp nit ki nit ki ba ci ñetti fan bàmmeelam ñetti fan bàmmeel waaw kaaraange rek nag ma ca xam nag mooy sangut rek sangut rek mu de waaw kaaraange moom ci ay sangat sangat yu wér yoo xam ne ay puso ngay àndal ak ak ak ak ak xeer xeeru créé wu xonq moom moom mën xeer ni muy eh? tëwee tabarkaagu moom noonu ngay mag ci cat moom tabarkaagu ci wàllu kaaraange eh. sëñ bi nit ñi soxor nañ de nit ñi bari nañu soxor de liggéeyal ma mm, ndaw si ba waa ji du ko takk diggam ak borom këram nañ tàqalikoo ah eh, place bi mu na ko na de na dof ndax am nga ci yu yu mu wa jamono ji mo togg fo xam yi sëñ bi ku wut ñu bëree ba daanu ci sa très bien ku wu ñu daanu ci kaw da ngay fexe nek brandé man mi sax bàyyi wuñ ma waye da ngay nek brand rek wu ñu wu dag sa kaw rek wat waaw ka nga mo yonaa ci doy wax yonaa ji ku ñaan awun baawun sëriñ ci ko xam wut ñu neew ko xam ci sëriñ awun baawun boo ko liggéeyee doomu diñ ne wagi wagi yu yàgg sax bu ko fi noonu jëgë moom moo fi wàgg bi moo fi jógee waaye nit ku dem fenn. yaa ngi awut yow naa ci goo yow yow naa ci goo xam ne takk moo mën xew kaso mu doon nekk kaso bëgg génn. waaw ki nekk kaso bëgg génn damay faral di wax ne ñeme naa ci rek un milliard doomu te bu ko neexee dama koy génne mu ne ma fay. li ma koy géem waaw waaw dama li ma nekk dama li ma damaa toog ci guy waxtu dama li ma nekk dama cee ñeme moo damay fa di wax ne sëriñ si nañ nañ nañ gëstu ci xam-xam bu wér ku ko ci amut bu pënd bi wëree da nga mel ko defut dara ku ko ci am nag bu pënd bi wëree ma ngaa dem si yoon. sëñ seexu naa kan nee na ku sa mbokk nekk kaso te nga bëgg mu génn. génn ci tigg ak nag. pëg yi xam nañ tigg sama mbokk pëg yi xam nañ tigg ak nag. tigg maam nak wu ñu yow mu rëcc. buum nga ca des. xam nga nag yu xëccën góob nga ca des ca gaay def ga may def mu xaw ko noonu na ko gis rek kiñ tëj kaso fa amaat juróom ñaari fan. <laughs> ilaha illa dafa am sept jours ñu bàyyi. juróom ñaari fan. nuñ ko mën a génne dañ dañ ko génne. te boobu defe ma ci génne ci réew mi bëri nañ te am am na kii fa yoo xamante ne si tëjoon nañu ay kii fa politiciens génn jël jël ñu tudd seen tur ñoo xamante ne buñ bu ñu tëjee Khalifa Sall ñoom ak Khalifa Sall ñu tëjee ndoo te bu ñu génnee ginnaaw yàgg ñun ñoo tax jël ñu tudd seen tur nag waaw ci gu wér ah, Karim Wade mi génne moom ah man daal du wax kenn waaye daa xam naa am nu ñu xam ñu xam ci baa du Badu day politicien baa du waajal daa man daal du ma tudd kenn <laughs> man daal du tudd bëgg na am soxna te am ku muy bëgganteel ndax am nga ci waaw googu moom du daal googu moom koo soxna soxna si bëri bang bang mu bëgg jubo. jubóom xam nga mag ñi daan nañ am téeméeri soxna ci génn kër te du yëngu mag ñi dal na ñëw téeméeri soxna ci génn kër. wax dot déet man du ma wax waaye am na waaw doon xam dott sax gaawul am na ñu gën a gaaw yooyu am na ku ñu naan tasxiir doomu aadama tàggat mag ñi daan nañ yor téeméeri soxna ci génn kër te kenn ñu ko wax ñëpp ci sëñ bi bëgg rek ci ñu nekk ah kooku yëf rek yëfi mag yooyu ba tey mi ngi fi ñu <laughs> ah, yooyu moom ñu rek macha allah mën nga ci am ndam. Hmm, euh, muy lu am solo kon mu nekk Serigne Cheikhouna kan nekk ci dëkk bu sell bii di Touba di sëtub Serigne moo Faty xëri Mbacké ak Serigne Modou kan nekk fii nga xam ne moom moo di ci euh, Touba Mbal tey ñu seet si woon ko macha allah euh, doon seq ak moom li nga xam ne moom mooy waxtaan yaakaar naa kon Serigne bi fi ñuy daal di jeexalee ci wàllu seet ak yooyu ndax di ko def. waa xam nga seet moom toog nii moom maanaam jëg ay bagages di seet moom man uma jot kooku loolu damay faral di wax ne dama sëriñ ci baax ñu xamul dara dong koy def tout le temps damay faral di wax su may wax man li may wax moo raw téléphone may wax moo raw téléphone li may xam bëri na te li may xam lépp bu mën ko wax ba adduna bi mën ngaa xool ni rek waa dama ne nit ki bu fekkee de mi ngi yëgu ci sëriñ bi ñaan dëgg dëgg faaw nga am ay gars yu ànd maanaam képp kuy ñaan di seetal nit ki di gàmm ko yow xamagoo dara xamagoo xamagoo dara moom da ngay daan jàkk nit ki mën koo wax weer nañ ci moom loolu nag du du nangam nangam nangam mooy ay yëf ga de wax ku ku ku maa doon ak foo mën a jógee boo teggee sa tànk sama buntu kër gi yaa ak aaju joo indi ak koo xam naa ko loolu suñu boobaa te nit ñi xam nañ ci daal waaw. li ñu cërale woon ci waxtu jeex na ñu ngi lay gërëm. waaw waa di di di leen sant ndax moom toog bi toog suñ tubaab kenn moom ko kuut suñ tubaab. te yéen ba bay seenu waax ci toog bi euh, moom sant nañu bu baax di di wax nag am na koo xamante ne si jamono ji gars yi dañu def problème bu rëy te maanaam gën a ndax jamono jee metti am na gu ñaan fay wax maanaam coow goo xamante dafa àgg fu nekk nga bëgg mu fay woo tamit dafay faa di wax ne moom tamit ñëw naa ceeg ak un milliard doomu aadama. xam ne coow la koo topp. waaw waaye kon ñoom bi gu rëy. waaye nag de kon mën naa tudd ma kenn waaye kon. Ousmane Sonko de temps yi coo ko ah ku defuk ñomb gu rëy bëgg bëgg. maître Moussa Diop it coo topp na. waaye nag ku defuk gu rëy waaw ko coow copp nga bëgg coow nga fay li may def moom ci tuq laa koy def joxoo ko sangoo tuq waaye kenn dootul bu soo yàgg kenn ñëpp ku nëpput xam waaw mu wowuñu suñu bopp waaw. fu ñu war a noppee. waaw tànk ñu ngi di sant di gërëm dëgg fi laa nga yéen ngi bay seen u baax ci toog bi gi rafet na nii rek nii rek la ñu ngi sant bu baax di ñaan suñ tubaa mi mi tax ngeen def yàlla na ngeen suñ tubaa fay euh, di ñaanal suñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fa yàgg te ba naag yim naag naag maam yëpp yëpp mën ci bàkk suñ tubaa di saare waajur yëpp waaleykum salaam wa a taala wa barakatu alhamdulillahi sil xufraani wal karami jaaxle jeex na Elda si ñëw na restaurant bi gën ci dibiterie pâtisserie ak fast food ànd ak nag salle de conférence bu mucc ayib au woote 77 823 64 70 76 586 21 21 77 195 25 24 76 354 44 44 restaurant El Daci bi nekk ci yoonu mbak bi jàkkaarloog banque Islam mu ba le palais du goût senevision.com la crédibilité notre credo senevision.com wóor la ñuy kumpa tàggoon ak yéen kii nag di leen wéy di ñaan ngeen di abonné ci suñu site bi di senevision.com te bu leen di bës cloche bi mooy tax mu leen di di signaler bépp vidéo bo xam ne dugal nañ ko ci site bi